ci yéene wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat dañoo ñëw nag Louga ndax fii fi la ñu denc kër gi toog fi la ñu denc soxna Roqay Njaay way juru sëriñ Babacar Si di way jur itim soxna Astu Si doomi Cheikh Al Hadji doomam moo toog nii di sëriñ Abdou Karim saar ah sëriñ Abdou Karim nag comme sa tànki maam la ñuy topp ba yëg si ci yow eh, bëgg nañu nu nga nettali nag noonu nag tuuti ci sa maam ju baax ja di soxna roqo eh, Roqee Njaay bismillahi rahmaani rahim ma sha allah wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim maa ngi leen di nuyu di leen sant eh, di ñaan yàlla liggéey bu rafet bii ngeen di def ci Cheikh Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu yàlla yeggale ko ak jàmm te incha allah dana yegg ak jàmm ndax Cheikh Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu damaa wax ak sama benn doom muy doomu sëñ ba sëñ ah, ma ni ko sa maam boo gisee mu wax li mu wax ci yeneen bi lu gàtt gàtt laa la ko cee waxal. ma ne ko Malick 91 la 91 ban chiffre ci topp ma ne ko 92 ma ne ko li Seydi Hadj Malick génn ci yenent bi moo yàlla da ko ma dafa sës rëkk ci yenent bi moo tax mu xam li mu xam ci yenent bi wax ko ko ma ne ko sa maam kenn du ko dendale keneen li mu génne ci yenent bi tabaar fakal kenn ji génnewu ko ci eh, gannaaw loolu ma leen wax ni ma indi fii ci Louga ah, man dama nekk ancien militaire laa woon dem naa Algérie dem naa Louga dem naa France dem naa fu nekk mais bi ma ñibbisee nag ma dem sama yaay xalifa Aboubacar Si radiyallahu taala anhu ma ni ko ne yaay daal dama la doon ñaan pour dem kokki ci ko sama jaw jàngi fa ndax doomu soxna amul lu dul àlluwaam ah mu ngi tekk ba yàgg ma dafa mel ni boo demee boo boo demal ca Louga toogal ma ca kër ga te téyal ma kër ga loolu la wax ma dellu su fii ci mooy li ma tax ak fii ci mu dénk ma ah, lu ma xam sëñ Babacar na ko ilham moo tax damay wax ni mbër ci kële jàggarool kenn du taxaw ni la maa jàngal Abdou Karim Sarr amul jiw maa jàngal Abdou Karim amul lu ma xam yàlla ma nga xamal ci barke sëñ Babacar ak ilham yi nekk ilhaman ci barke ba góor gi moo ma xamal lu ma xamal moo tax ma ni mbër ci ka jàggiroon gannaaw loolu nag maam lool xan njaay mii ngeen may laaj léegi tey ah eh, dinaa leen ci wax lu am solo te lu gàtt la alhamdulilahi rabbil alamina soxna astu moo ma jur waaw maam lool dafa nekk ca ndax Mamadou Xarañ Njaay ni nga xam ni ci na Xadijatu noonu la jaayante woon yenent bi dafa mel ne noonu la jaaraleeg moog Seydi Hajj Malik ci jaayanteem ci moom ndax mu nga nekkoon ci ndar te booba xamuñu woon Seydi Hajj Malik mu jaayante moom sama yaay nag netti na ma nee na Njaay bi mu nekkee ci sukuraat nee na dama woo soxna Fatma jabaru góor gi taabaan woon ci taal bi Cheikh Hajj Malik naar lu ba bëri woon xam-xam nekkoon ci kër gi ku nekk ci kër gi xam nga sëñ taabaan sama yaay nee na mu ñëw mu toog nii ma toog nii ñuy ñuy teru sóotu yaasin di teru sóotu yaasin ba maam roqee dog sama yaay nee na ma takk ñaari baaraamu déyu loxo yi takk ñaari baaraamu déyu tànk yi génn fab layu bi def ci suuf dikk teg ci dënn bi dem ba yàgg ma dellu dikk ciim ko ni ko baaba ni soxna daa jaama jaaxal li nga daj ci Seydi Hadj Malick radiyallahu taala anhu ñëwul ba nga gisee muy Serigne Babacar jaaxal nga ma daal di wàññi ko dem nee na ma dama yàgg ma wàññi dikk ci maam roqee fekk muy xoole ma ni ne ma xaw tiit nag ma ni ii ne naar bi ni ma yaa ko def yàlla def ba sëñ Babacar ni cëpp dama ni cëpp fekk yaa ngi doon nekk yaayam nekk yaayam ba ci ëllëg te ca tàkkusaan sama gaañu te mu gaañu woon mu gaañuwaat sëñ Babacar yónnee ca ba docteur Mbodj woo mu ñëw docteur Mbodj seet di seet ba yàgg mu jaaxle lool jàpp gémminam ni ko de si dama xaw jaaxle mu ni ko lan mun ko dafa mel ni kii kii daal xol bi dee na démb ci waxtu wi waaw maam loo xëy def na kéemtaan boobu boobu nag ci moom dinañ ko mos a jege kéemtaan bu xaw doy lool dem ba sax ba noppi dellu siyaat alhamdulilah rabbi amina fii lañu koy def nag tabaat fakar la euh, rawdu bi ay kéemtaan yu bari am na ci li qalbi yi ne ci ñaan bindul maam Roqee Njaay li sabab kër gi itam sëñ Babacar amoon na kër ci waawoon amoon na kër Dakar amoon na ay kër waaye maam Roqee dafa mas toog ci ndar nii ma bëggoon bu ma yàlla jëlee fii ñu suul ma ci boppu jàkka soxna Astu sama yaay ñu ko Roqee daal yaay buur ndar gi fan la fee suule ci bopp jàkk mu ni ko aasi ah, yàlla am na jàkk aasi ah, yàlla am na jàkkaam jooju ma xoon mooy lu sabab sëriñ Babacar jënd kër gii tey ndax kër gii këru cosaan la xam ne këru li jaabala waaw sëriñ Babacar jënd kër gii tey muy soixante six soixante tabax fi jàkk dafa fi léppam ne bàyyi ba bi li xali ne mbay si Mansoor xale ba moo ni moo ni woon biti bi day wóolu ko waaye kër gi day wóolu na ko ci lépp ku fi nekk yàlla dañ la musal naan daa yegg fi nga yegg kër gi kii kër yu li xam ni moo tax may wax xëy bu ngeen xamoon li ci kër gi du ngeen sol daal ci biir kër gi waaw du ngeen sol daal ci biir kër gi ndax li fi nekk ci wàllu li jaaba rawdu bi feeñ bu nekk kéemtaan bu nekk yàlla war na mag fii parce que maa defar yëpp maa amee lépp waaw lu nekk ci wàllu wàllu la saar fekk na ma lu fi waay ñaan ci kër àddina yàlla doon kaka defal ci barke maam rasul ya ilahi wajziyan abadan ci rawdu soxna Roqee Njaay la ñu taxaw ni yàlla dogal na dund na ba génn àdduna musul dem ci yaaram ndax la ko sëriñ Xaaj Malik bàyyi doon ba mu koy yebal mu jóge njaar leen ndax doonam daf ñu koon yaa nuzhati yaa xurati yaa nuzhati yaa xurati yaa amali yaa aynina tawakkali bi ilahi xaaliq aljabali wa taalima anna hadihi daara faniya wa kulluna raaxilin tuuba lil muntasiri lu ko nekk afa ca afa ca rabbin laa sharika la kon demal nga toog te wattu ci yàlla yàlla moom moo am dund moo lay dund moo tax dund na dundin àdduna musta leen jaawa waaye suñu baabu kese la yàlla taala indi ko fi dëkk moom fi di fi ñëw ci jamono bu nekk wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa rahmatan idh mada jazlun bila